bismillah fii niin ak daara yàllaaw sawi baqa abi bi bismillah fii niin ak daara yàllaaw sawi baqa abi bi fiika yàllaaw الأمر يا من لا شريك له وفي وما ذراء di siara di sante yalla bu baax di ñaanal Cheikh al muntaha suñu borom yagal ko fi loolu te wéral ko ba naal yi naal fas yéene koo liggéeyal Cheikhul Khadim ñu and ko ak moom euh, di leen siyaare bu baax yéen ñi nga xam si ni yéen a ci bis bi ngir lu jëmale bis bi kanam bis bi Serigne Modou Kiman Diop mom Serigne Basirou Diop mom Samba kharit mom mom serigne Basirou Diop mom Diir Diop ndam ndama bis bi ñun ñi wax di galam ñu yàgg ko and ak mom ay at yu bare bari suñ borom def mu luñ fi ci wañuy ñu yàgg ko ànd ak moom taxawaay waañ wi yëpp mu teg ko ci suñ loxo ñu ànd koog sëriñ Goot mais nga xam si ni moo taxaw ne déet waaw man day xam naa daal bii mooy ñetteet yu ma fi ñëw ba ma fi ñëwee ba léegi nag wax dëgg yàlla at mu jot waañ yi ci sama loxo lañ koy teg ñu di ko taxaw ànd ko Goot mais waaw wa bis bi seigne Modou kiman kep kuko xam-xam ni nituk la bis bi bu ñewé bu ñu xëyee dañuy wacce kamil bu beccégué ñu défar berne yi moom lañ nek ni muy añ mom day nituk teraanga ay nit di jël ay bis yu bari di ko tuddé te xam teraanga nak bis yi ñu koy tuddé yakarna ñun ñi ay ak mom ci ay bis yu bari bari yakarna naa ku ko tuddee bis rek def na fa moom nitub teraanga la dafa yàgg dem ci nit ñi ba xam ni ni ñuy ni ñuy terale nit moo tax ab bisam bi mu ñëwee dafa wax ni na lépp doy bëgguma ko fi ñëw naan naanuma bëgguma ko fi ñëw naan añuma bëgguma ko fi ñëw naan réeruma lépp daa bëgg mu doy moo tax bis bi wax dëgg yàlla seen nga añi rek ñetti mbana lañ def nii bu ngoonee la ñu togg reer yi buñ reere ba noppi buñ defee cérémonie ba noppi doog dugg ci biir kër gi xéewlu reer yi. mën nañ fee xaar leer ak yeneen ak yëpp yam ndax lima la wax léegi rek neena la seigne Modou kiman day nitu teranga mom da xam ni ñu terale doomu aadama moo tax lépp da koo fàggu fii bu ku fi ñew rek lepp luy teral nit bo ñew dang ko fekk soobe yalla wa jere jef seigne Modou mbay ndjay ñi ngi lay nuyu di la contente ci cadeau yi nga jëgëti muy am solo euh, tay fi ma ñew sama kër la ma ñew Euh, sëñ moodu maa ngi lay nuyu di la sargal ci bis bi nga xam ne taxawoo ko defal ko ñëpp nag di nuyu mboole ñoo fekk Abdou Lahad nuyu sama xarit sëriñ Bisil maa ngi lay nuyu di nuyu sëñ Jaw ak euh, ñi fi nekk ñëpp maa ngi leen di nuyu sàdd ak ñëpp sëñ moodu yàlla dafa def maa ngi moom euh, du tey. démb la ñoo ànd fowandoo doon ay xale nekk ci koñ bi mosu kenn mosuñoo àtte xeex ma ak moom wala xuloo mosuñoo su ñëwee am lu ma war a wax ton bu ko neexee la ma koy waxe day ñëw si fekk ma toog da ngay fontu nangam nangam ñu wax la ñuy wax mu génn ma ci la ma bëgg génne ma dem sama yoon damay ñëw fekk ko mu toog ma wax ko li ma ko bëgg a wax génne ko ci laa ko bëgg a génne mu dem ma dem loolu ak xarit dëgg moo ko def ku ma xam-xam nga ko sunu diggante yàgg na su ma seedee ci moom jàpp naa kenn soxlawul muy seede ci moom ndax man maa ko xam xam gi ma ko xam musuma koo xam ci lu dul noonu musuma ko gis ñoo bokk ne ci koñ bi xaleendoo màggandoo ay nit bu ngeen àndee lu mat fanweeri at wala fanweeri at ak nangam yaakaar naa xamante nga ak Abdou Lahad mee toog loolu du tey mais yàlla dafa def mu doon nit ku baax nit ku dëggu nit ku ma naw ndax li ma ko nawee mooy nangoo liggéey lu muy doon doon kilifa li kilifa yëpp def lay def mooy dem ci àll bi wuti ay tool di bay dama cee doy seede nangoo dem ci àll bi wuti ay tool di bay comme ñëpp mag moom digaloo nañ ay tool digalooti ko kon loolu euh, lu ma mën a wax la te mën ko seede du nit koo xam ne dama koy tooñ ne ko dañoo am ay jukko yuñ bokk mooy rang ci nit toog di raam ak solal nit ay dàll yoral ay nit ay daal duñ ko defal ku sëñ Tuubaa maanaam yoral nit ay dal di la raamal di la sukkal ngay yónni suy nopp di xotti duñ ko defal ku dul sëñ waral lu ñuy am suñu liggéey moo ko may loolu kon bis mu def ci koñ bi koñ bi yëpp la ko defal bis la boo bis buñ soxla la ndax ab dëkk munti koy ab quartier munti ñàkk léeg-léeg fu nit ñi daje toog jàng daje fa waa koñ ba daje fa tok di ñaan kon am na fi ñu ko fi def moom mu dikk taxawal boo xam ne ëpp na fukki at du tey doodul ne tey la ko taxawal ñu yàgg koo ànd ak moom kon nag ñu ngi koy fas yéene yàgg gën koo yàgg ànd ak moom di wax na sëñ jaw yow mii ne sab xarit a nga jóge daaru moxti ñëw fii am nga xarit te lu leer laa la wax doo ci am kersa doo ci rus ndax lu tax mooy doo ko fekk ci lu du noonu doo ko ci déggit nag dama koy tooñ du xuloo du xeex ñoo bokkoon même saal bu ñu doon defee karaté ñoo ko bokkoon mais mosuñoo bu ñu mësaa jóge sax di jógee entraînement di ñibbisiwaat suñu rombee ay nit yor ay saak jóge entraînement man ñu ne ma ne xaaral ma carnière nañ def dem xool leen dana nañ ñibbi bàyyi seen caaxaan yi maanaam mosuñ ko dégg ci yooyu ñu mel na ñun doon nañ di kaf nga xam ne seen ay nit ñu yor ay saak comme ni ko karatékaay yi defee ku yorab saa gàddu nga dem ne di xool ba xam fu mu toll ak yow foo toll mosu cee dugg sax yooyu du werante du xuloo du werante du xuloo du xeex xamewu ma ko mosumaa dégg ñu ne ma kaay àtte koog diw wala mook diw wala diw la def la du noonu kurusam këram ay xaritam mu ñun ñu doon àndal bu ñu toogee ñun ñii bay waxtaan yow boo ñu fekkee sëñ Mor yow xam nga li xew yow da xam ne ñii moom leneen la kon nag bis bi bis bu rëy la ci man moo waral wallaay lansim bërki démb maa ngi woon Dakar mais bi mu ma wooyee wax ma ko dama ne ko dinaa dinaa ko fekke dinaa ko fekke moo waral bi ma ñëwee sax ak léegi nangu dem tool parce que bëggu woon dem bis bi ne jàll sama ginnaaw bis bi ma du dem bii bokku ci bis bi ma du dem bii bokku ci bii daa ciy ñëw sama bis la ndax suñ taxawaay suñ diggante kon nag euh, maa ngi koy saragal ci bis bi De la santé, de la gërëm taxaw ñaari casque ba casque chef religieux ko quatre casque maire de Touba ko taxawé taxaw fi quatre casque haut conseil ak parti bi wo bok muy APR mën naa taxawé casque kon président bi lay ñaan nga ñaanal dëkk parce que réew mi dugg na ci ay guute yoo xam ne ñaan rek moo ci mën a génne. bismillahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñoo ngi nuyu ñu fi teew ñëpp di jiital ci nuyoo bi honorable député Abdoulaye Seck Sadaga sëñ Modou Mbaye Ndiaye sëñ Modou Diaw mi jóge Darou Moussi sëñ Tax sëñ Lat Xuma Axma sëñ Jiri Ñang ak sëñ Pape Labak sëñ Sadaga mboolem ñu fi teew ñëpp di rafetlu jotaay bi di wax ne. tey dama bég lool ndax li waral bégte mi nit amul lu bisam te temps amut jot dafa cher te man li mu ko waxee xam naa calendrier ni mu chargé kon su bàyyee yitte yëpp ñëw fii lool moom day rëy ci man lool ndax ñu ko sëñ Modou mbay waxee ne ku ne ñëw na fi ñu yëpp neex na ma waaye bii bokk na ci yi ma gën a neex ndax olof day wax lu yàgg dëgg la te nit koo xam ne ba ngeen di ànd booba mën nañ da ngeen dawal mbege kon bu ngeen demee ba nekk ay mukallaf samp kër amul njaboot te boo boobu boobu lépp di rafet kon loolu dëgg la donte nag ci seen àdduna bokkul ay yoon yu ngeen jaar waaye teewul kóllëre gi yéen koy sàmm di sàmm diggante loolu lu rafet la mu li mu wax ay kàddu yoo xam mën naa ko seere laat mel na ma ci boppam loo xam ne mayu ko ci mayu ko ci ñu bari ndax ku naqaree digal la ku naqaree waxal la waaye yàlla dogal na lépp lu mu nekk su mu ko bàyyil mu bàyyi loolu loolu mel na ma ko ci boppam ñuy waxtaan ay ci ay dossiers yu ak ay mbir yu baree baree baree baree bare loolu nag kóllëre la ak ak doyloo te ma ndax manoon na ne moom nangam la nangam la nangam la nangam la waaye loolu defu ko loolu nag bu ko defee daa daa sàmm démb xool xool xool jaar jaar xool xool li nga xam ne moom moom lañ moom lañ seex moom nag muy ku baax di ku di ku di ku yiw malgré dafa am benn jafe-jafe bu fekkee da ngay def politique dañuy xool euh, côté politique bi mais sa li nga xam ne mooy sa côté humain duñ duñ ko xool te côté humain la war a xool ci nit nit mi ngi mel ni nit nit ku ne am na métier nit ki métier ak moom bokkuñ ndax métier am lay def mais moom mooy mooy mooy personne muy ko humble nag di ku oyof ku nekk ay ay gone wala ku ne mën na koo tàddal fu nekk te loolu jikko yu am solo la ndax am na ñoo xam ne suñu eggee yenn yenn yenn yenn niveau yi wala ñu am yenn ndomba tànk yi am na ñoo xam ne vie tent tente la ñu yor boo leen nangame boo leen nangame waaye man numéro téléphone bi bi ma amoon bi bi ma xamoon mu am ko ba ba dara du dara diinaa man magistère bi bépp numéro téléphone boobu la yor saa ko ci woowee soo ko jotul bu noppee daf lay rappelé loolu na loolu moom mën naa ko seede may wax nag ne àdduna moom amul solo te yàlla noppi na ba noppi li war a am suba li war a am lëndi yàlla du ko dogal dimanche ci ci ci ngoon mukk faw leen faw faw leen la koy def te tubaab mooy benn proverbe bi tubaab di wax a son destin ku ne am nga sa destin yàlla nag mooy jaarale ku nekk fam fam lay jaar kon damay ñaan yàlla nekk fu gën te nekk fu ñu gën ba nekk nekk fu ñu gënal loolu la ñuy ñaan nag bis bi tamit ñi fi teew ñëpp maa seen diggam di yàlla bu nekk suñu mujj gi réew mi di Sénégal ñoo ko bokk yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla yokk suutura yokk xewal yokk teraanga yi ku ne yaa xam la nga bëgg yàlla ko yàlla defal ku ne yaa di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne bég naa lool lool lool lool lool lool ndax ñi fi ñi fi daje ñoo ñoo tax moo bég te dëgg rek moo moo moo moo moo fi tax a daje ak ak kóllëre ndax am na ñoo xam ne bis yu bare bare bare am na te temps amut am na ñu bare bari mën nañoo mën nañoo mënoon nañoo dem fenn ku mel ne sëñ Modou Mbaye mi nga xam ne day yor micro central man mën naa ne nit la koo xam ne ku national la ah su tey jii ay bis yu bare yu am yoo xam ne wax nag mais day bàyyi yëpp ñëw fi kon kooku jikkoom rek la ñu àndee. ak ñeneen ñi nga xam ne si ñun ñëpp ñoo ñoo ñoo ñoo ma ko waxee rek mën naa yóbbu mboolem mbokk communicateur su ma tuddee sañ sañ sañ lat xuma mi mën naa yóbbu nga xam ñoo doon ànd bi ñu nekkee daw li ñuy wax ami ami te loolu lépp moom mu mu muy lu am solo kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullah eh, ci ndimbalu mag li nga xam ne defal nañu ko tey jii te mooy ñëw ci bis bi nga xam ne bisub sant la eh, mbokk mu baax woote ko di sëñ Mat Diop di ko ñaanal e, ginnaaw boo xam ne e, macha allah bi mu wootee wooteem boobu nga xam ne mu ngi ci woowoon mbokki jullit yëpp ñu baax ñëpp ñëw nañ fekk ko fi e, la ko war lin mooy nit ñi li ñuy leble bariwut waaye li ëpp mooy dañuy fay bor suñ Moodu nag dafa bokk ñi nga xam ne lu ko waay defal bariwaana lu muy doon la muy taxaw mooy ak pay lay doon ndax ku am ak yëg la ci nit ñi euh, te it am ci ñoom ak cofeel am ci ñoom ngir mànde euh, loola moo tax bis bi ba mu ko wootee euh, ku ko dégg rek te yàlla dogal nga amante nga amlante woon ak moom rek la nga jàppoon lépp bàyyi nga ko ñëw kon daal bis bi ñu ngi ko ci ndokkeel bu baax a baax a baax di ñaan yàlla it jullit yi nga xam ne ñoom tamit bàyyi nañ seen yitte yëpp ñëw ngir teewe bis bokk ak moom euh, seen tànki ñëw ak seen tànki dellu suñ boroom def ko aw yiw bind leen ko ci seen téere jëf ya euh, bis ba nga xam ne lu baax du fa doy euh, ab safaan it nu mu toll ëpp fa mu def ko ci seen téere yiw yooyee loolu daal moom mooy doon kàddu yi nga xam ne moom la ñuy yëkkati بسم الله الرحمن الرحيم سديد لساني نوير جناني سفي الاماني وسيد براي غنا بن سانتا يالا جولي سي يوننتي بي جاجفال مولانا شيخنا احمد القديم دي نيانال سيرن منتخب البشير يالنا في ياغ لول توير لم يينه ليغي شيخ القديم سيرن بروم ميكو كاتان اك وير مو ديفي نيم كو صوبي تا ني اندكو اك دي نيانال مبوكي جولي ديغا خامني ci suba ba legi ñu ngi yàlla ci ka sëñ Modou Kéemaan job gi may sante sëriñ salih di ci ñaanal wajurum sëriñ Cheikh job ak maamam sëriñ Massamba jeri job Ndaama muy bis bo xamne ben xeye jang na fi alquran limbu takko takko and ak ay awraat yo xamne ak tuddi yalla ak zikkar di ñaan lol lepp nak yalla ko yalla yegel ci daraja yi mam maam yu bax yoy nga xamne ñom la di ñaanal te jaaree ci sun buntu mi seewal xadim ci barke sun saalim mi nga xamne euh, lepp mom la euh di nuyu mbokk yi fi fekk yépp di ay kilifa di mbokk sun Modou di ay xaritam di ay soppeem ak ñi nga xamne ñom la ko bolel euh muy bis la bo xamne nak nag ni ko Abo mi legi waxe rek bis la boo xam ne dañ ko ciy fay waaye ñu bëree bëri lépp lépp ko ndax sëñ Modou koo xam ne xam ne ab demkat la kon nag ñu ñaan lépp lum ci yéene ak lépp lu ci bëgg yàlla suñ borom defal ko ci lu kawee njort ñi nga xam ne ñoo fi ñëw ngir sàkk aw yiw mbokk yàlla na suñ borom defal ñu lépp loo xam ne suñ borom daale na ko te digge ko ci ku dox ak mbokk waaye ku fekk jotaayam lu baax yàlla suñ borom defal ñu tiyaaba joojee di nuyu sëriñ Masila Taax mii nga xam ne moo fi ñëw ci turu sëriñ Moussa Rahmata Silla xalifa ci la dara man ñëw fi ci turu sëriñ lii mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Cumbuleen Mari Yaasin Silla ak njabootu ci la gépp mu ñëw ci eh, sëñ Cumbuleen moom sëñ sëñ Moussa di mbokk ci sëñ Moodu li léppam moom moo fi jiite woon léegi ñëwoon na fi ba dem ak kilifa yi nga xam ne ñu koñ bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla nu yàlla defal leen toofeex ak taysiir di sant mbokk yi fi fekk sëñ Abdou Lahad Kumba sëñ Njaay ak sëñ Jili Abdou Khadir Ngom ak mbokk yi nga xam ne yëpp ñëw nañ fi ngir ànd ak sëñ Modou bis bi. ñoo ngi delloo ziar bu wér ñoo ngi sant maa ngi lay sant di la jaajëfal di nuyoo di siyaare waaw man de sama teewaay ci bis bi xam naa ne li ñuy wax naan. am na nooy demee ak nit moto ci seere sax waaye nag du tee ñu def ko rek ngir yàlla ndaxte sëñ Modou laaj xamanteel maa ngi koy wax sëñ Fallène mii léegi nii bis ba nu xamantee ba léegi muy yokk cofeelam ci man te musuma koo laaj dara itam te waxuma ca la nga xam ne mooy ci xalaatam te loolu dafa am solo ci ci doomu aadama ma xam ko mooy nit ku am yar ku ami teggin di ko dëgg ba noppi di kilifa nag ndax ñi fii li Baye Dame Ndiaye di wax baax a fi amoon bi sëñ Tuubaa ñëwee moo ñëw gën ñëpp waaye mu amoon ay maam bokkan ca maam yu baax yooyee ñuy wax noonu rek samay maam bokk ak maam yi keneen ku fi topp sëñ bi rek. ba nu xamante ak léegi nag wax dëgg yàlla mu teg ma foo xam ne nii daal euh, ñi am na bokkal sax te teguñu ma fa. ay jikkoom xam naa ci moom dëggu de ak am fulla lool ak moomu làmmiñam di xam naa ne itam nekk na koo xam ne mën naa toog fii mu fees dell ñuy wax wax ji bari lool ba kii te du ci dugg du ci dugal kàddoom bis boo ko ci dugalee nag la mu xalaat moom la mu xalaat nag laa wax waxuma nag ne toujours day nekk dëgg wala yooyu waaye la mu xalaat moom moom lay wax ca lay taxaw ba baa ba baa ngeen di d'accord wala ngeen ñàkk d'accord waaw loolu moom xam naa ko ci moom it wax dëgg yàlla salaamaaleykum wa rahmatullah taxala wa gannaaw bu ñu leen nuyoo nuyu bi lislaam li ñu ci mën a wax li ñu ci mooy wax mooy fa innamal mu'mini axwa ak waxtasimo bi ablilaay jamian foofu lañ njëkk foofu lañ njëkk a àndee jullit yëpp di ay mbokk ñu war a jàpp ci génn bu mooyaalu sëñ Tuubaa dëgëral ko ci loolu lañ loolu wëllërante ak ñun ñaar te sabab bi di sëriñ Fallou Sylla Dramane kon sëñ Modou liñ ci mën a wax mooy ab taalibe la ab taalibe nag bu ñu ko waxee dafa ëmb lépp nag ab taalibe moom mooy mooy lépp mooy addina ji jag ak àllaaxira ji jag kon loolu day doy sëkk ci ñu seereel ko ko ab taalibe mooy addina jag ak àllaaxira ji jag mbokk yi ginnaaw ba nu sante yàlla julli ci yeneen tem bi sant Cheikhuna Ahmadul Xadim Sëriñ Touba. ca ber ni ko sunu borom bere ci biir kuréelam yu tedd ya kawe ñu ngi am mbégte bu baax teewaat fii ci Touba Guédé waaye ci kër Serigne Modou Kéemaan Diop mi nga xam ni ne la at mu jot mu woote bis bi woo ay mbokkam woo ay xaritam woo dëkkandoo yi waaye gor ñëpp fekk ko fi bokk yëpp fekk ko fi wëllëre yëpp fekk ko fi doy na sëkk ñii nga xam ne ni ñoom lañu ñu toogal di waa kër sëriñ Aliou njaay Guédé yàlla na sunu borom yokk ay leeram ca taas ñu ci barkeem ci barkeem sëriñ Touba ndax pàkk bii di Touba Guédé ku ko tudd tudd jàmbaar jooju nga xam ne ni nii jàmbaari lislaam la woon waaye liggéeyee ko nu Cheikhuna Ahmadul Xadim la ba sunu borom def tey jii mu jiitu ji waaye ak njabootam. li may wax ni des nan ginnaaw waaye yàqunu dara ñoom ñëpp ci kanam président Modou Mbaye Ndiaye dina leen tudd ci cérémonie bi waaye dama doon jotal genn kàddu rek gu jëm ci sëriñ du Diop joge ci sëriñ naa Caam almiñoo mii toog di sunu xarit di wóllëre di nit ku baax dëkk ci dëkk bii di Touba. bokk ci taalibe sëriñ Touba yi ginnaaw ba mu dëkkee ci dëkk bi ndax sëriñ bi ñëpp ko wuy ci biir dëkk bi léegi koo foog ak koo foogul ñëpp a ngi fi kon loola julli da ciy nekk ñu dul julli sax dañuy nekk ci biir dëkk bi waaye moom mën na ni ci biir dëkk bi la dëkk sëriñ Touba la yaakaar entreprise yi nga xam ne moom la amit yi ci gën a mag ci biir dëkk bi la ko samp moo ne ma xaadim nanga ma santal sëriñ Modou ndax sëriñ Modou nit ku baax la. ba nu xamantee ba léegi ci li ma ko xam mooy mën a jokk ak bokk ca mën a def lu baax du fekke lenn lu yàqu lu yàqu ci ginnaaw mi suñ moodu dikkee defar ko loolu laa ko jàppe xam ni nit ku baax la di ko jara jaxasool fa ma jóge di ndakaaru sori na lool kenn ku nekk xam na ni fan yii yëpp foofa laa nekk ngir am fa ay chantier yoo xamante ni yaakaar naa ndaw ña àndal ñëpp ñoo nga ndakaaru jëmi sëriñ Modou tey jii moo ko dugal ci dëkk bi ngir saafonteeg moom waaye wan ko ni ko bis bii ngay defal sëriñ Touba sëriñ Modou ñoo koy ànd ba mu jeex loola rek mooy samay itte kon sëñ Modou sëñ naa nee na mu ngi lay ñaanal yàlla sunu borom dolli ngërëmam ci yow dolli la kattan. waaye dolli la wér ba yéene ji nga ama liggéeyal serigne Touba ci bis bi nga taxawal ke ñepp di la fi fekk yoon wi yëpp ñing ko seqal di la fi fekk mbokk yi ñepp di la fi fekk xarit di la fi fekk sun borom defal la ci tawfiq defal la ci naataange ci barke serigne Touba nee dal mom begna ceyd mu ngi feddali sa coloré ci kanamu sang su bax si nga ni tubaarkal la allah lu nu dégg rek loola rawna waaye sëriñ ma maa ngi sàkk ci yow ak sa mbokk yu baax yii ngeen ñaanal sëriñ naa mii ndax nit ku baax la ku jar a jàpp koo xam ne ñu ngi leen koy présenté ndax yéen gopp bi ngeen yor day bay ci lislaam waaye toolub sëriñ Tuubaa ko tax a jóg dara lu ngeen gis mu muy ruur wala muy nuur ak ñax goo xam ne day yàq mbayteef mi du ngeen ko fekke ci biir tool bi kon nag bu kii doonee ab taalibe kay jii ci yoon wi dinañ ko ji biral yéen ñi nga xamante ni seenu gopp ci yoon wi rek ngeen koy ruur na ngeen ko ñaanal yàlla sunu borom yokk ko ñu ngi leen koy nuyoole ak moom jëmmam ngeen ñaanal ko sunu borom wéral ko ndax seen bàyyi la lu mas a ku mas a jaaxle dikk ci moom boo jàkkaarloog sëriñ Aliou Ndiaye jaaxle googu jeex na coow loola nag doonul loo xamante ni da koy topp. la mu jëfal yàlla jëfal ko Serigne Touba loola moom mu ngi koy aña fa mu nekk waaye la nga xamante ba mu ko ci mu doon turu yàlla wala lu mu doon sikkar loola mu ngi ci biir njaboot gi mu ngi loxo mu ngi seen ëtt kon na ngeen ko ñaanal suñu borom defal ko xéewal président Modou Mbaye maa ngi jégg lu baax dama doon jottale rek kàddu Serigne Cheikhouna ngir santal ko gërëmal ko waaye kenn ku ne xam ne liggéey bi lépp sa loxo la nekk ñun sa biir ndaw ci la kon na la ci defal Eh, yow jotaay bi buñ la fi joxé cadre ñu tew fi and bis bi man na nek te war na nek ndax association bi ñu yore jité ko yow yaay porte parole bi kon yëkëti cadre ci jotaay yu melni donte ño fa bok nek itam lu wara nek la ñu lay sant bu baax dila gërëm yi tamit rafet na bis bi bis la bo xamni ñun ñëpp noko ko ndax ki ko woote day ku yaatu ku ñëpp xaj tey kilifa goo xam ne it gu mën a maslaa la waaye gu man nitam la itam dañuy wax ni wuti nit nag yomb na waaye téye leen moo jafe ndax aw tëyin daa am nikk nacc taraw te yàlla def na ci moom ku mu jaxasool ku ne rek natt na li mu jaxasoo ak yow mu xam ko ci loolu lu am solo la ci ak jaxasoo ñuy sant nag bu baax ci jëmm yu tedd yi nga xam ni ñi ngi ci jataay bii di waa kër sëriñ Aliou Ndiaye Guédé ñaanal seen xalifa bi di sëriñ Modou Ndiaye yàlla ko fi yàlla yàggal te yàlla wéral ko te yàlla kàttanal ko ba li fi seen waajur wa bàyyi woon mu man koo ànd ak yéen ngeen defe ko na ko bëggee ci barkeb sëriñ Touba. sagub yoon wi ngeen nag ndax bokk ci yoon wi loolu saa borom a def waaye sagal yoon wi loola day fekk li borom yoon wi bëggoon ngeen ne ca loola day dimbali ñiy li te nu bokk ci ñun ñii ndax wax ci nit ba noppi li nga wax ci moom ne ci moom dimbali na aji wax ji te lu ñu wax ci yéen ci lu baax am na lu ñu fekk na nag alhamdulilah ma nga ca ànd gi it gën noo yitteel yit ndax kër sëriñ Aliou Ndiaye Guédé xaw ma fenn de waaye fee moom koo fa tuddoon sëñ Axma Mire boo ko tuddoon boo tudd ñu si des day mel tudd nga ñëpp loola it seenu bennoo moo ko waral ak seenu jaxasoo kon ñoo ngi leen di siyaar bu wér euh, di xam joxe rendez-vous rek xam naa ci cérémonie bi incha allah buñ ca yeggee dana gën a yaatu ci présentation yi waaye fii dañ fi doon jël ay kàddu yu témoignage yoo xam ne ci jataay bi ndax jëmm ji toog. di naa ci am Armignon bu amee koo xam ne ci taalibe sëñ Touba yi am na pas-pasu liggéeyal sëriñ Touba ci dëkk bi di ko dimbalee taalibe yi di ko defal njabootu sëñ Touba gi loola honneur lay doon honneur lay doon ci jataay yu mel nii buñ ci accès ñu fésal ko ndax ñoom ñu xam leen euh, lu ñu leen xam doyut ndax ñaan du doy te yéen ñii nga xam ne da ngeen seq ak ñoom jataay yi da ngeen di ñoo xam ni seeni yàlla na lu ca topp rek ak ak ndimbal lay doon kon nag alhamdulilahi rabbil alamin bi ñu jataayoo suñu seexu naa xamewuñ la ay wax waaye bis bi dafa nekk bis boo xam ni annuel la at ba at lay doon yàlla dogale nga teewe ko te sa diggante ak sëñ Modou euh, nekk diggante bu rafet boo xam ni euh, li ko lal ku ne xam na ni wëllëre la waaye li ko lalit teranga la te teranga bis lay xaar te bis bi amul lu dul moom te ku ko ci lebal ak ku ko ci fay ñaar yëpp xàmmee na ko kon nag mu bëggoon euh, rek mu ni woon bu doon te ñaari kàddu ñu jële ko ci moom témoignage li ci des nag suñ demee ci cérémonie bi incha allahu rabbi kilifa yi fi teew danañ ko danañ ko biral incha ñu leen di présenter itam sëñ taax si la ndax xam ngeen ni sëñ Modou ko xam ku tuddu ak wetuk kër wajuram da nga tuddu ci la dara te khalifa ci la dara fi kon day melni bu sëñ Modou dee def te sëñ Modou bok ci mbakol ci wet gi ñukoy tuddu ci ci la dara Euh, muy defal bisam maamam ma Massamba Jéeri Joom Ndaama kon baax na itam ki fi teewal waa Thilo Dramane bu ñëwee ñu présenté ko waa dëkk bi nga xam ni damay naan seeni bokk lañu ndax bokk waxuma la bokk gi alxuraan fésal muy jullit yëpp ay mbokk lañ waaye ci wàllu càll la ci la dara Dramane nañu meloon ci alxuraan bañ ko fay wuti noona la la ñu jaxasoo it ak buntu këri Serigne Touba yëpp rawatina seex Serigne Touba ne di sakku ci kilifa yi fi tew yep ñaan ni seenu dom ak seenu talib rek ka fi nek ne di len siar nak siar ba gëna rafet ne sama digënté ak serigne Modou lima li ma ci wax du gudd ne xamanté bi yagud waye ci ngor ak bax rek la ko xam ak mana defar ay digënté ak mana joxe ay xalaat yu bax ah, man de wax dëgg yàlla li dem ci ay bërëb di wax bëriwul. nee man limay dem ci ay bërëb di wax bëriwul. waaye moom de suma santé li lii mënu ma ko ñàkk bañ a def. nee moom su ma santee lii ko mën a ñàkk def. sëñ Modou señ Cheikhouna nee na mu ngi lay nuyu bu baax di la siyaar. nee di la ñaanal yalla li yag am ci ay at yu bari. ne wax mom dafa bokkul ci lima mané waaw neena dal wax daal bokkul ci lim ma ne ne ñu ngi lay jéglu waaye ca di la siyaar bu baax ci bis bi la di sant jotaay bii nga xam ne mën naa ne jotaay bi sant yàlla la ndax ñi fi yàlla dajale te kenn bi ñëw kenn xamul na sa moroom sa moroom nga ñëw ndax ñi fi nekk ay wëllëra lañ ay bokk lañ ay dëkkandoo lañ ay xarit lañ mu ñëpp rek kaddu yi day suñ si naa bi daa daa jóge Dakar léegi ñëw te day delluwaat moom rek lay yeewu mu ne waa ñun dañuy dem ci tànt ba eggale fa waxtaanoo sëñ bi maa ngi koy wax nii léegi mooy wax kàddu sëñ Birame ne tey da koy joxe te dem ma ne ko sëñ Birame ay kàddu kenn nga ko ci am néeg te tànt ba laa koy wax léegi waaye sëñ Cheikhouna mi nag sama xarit sama soppe di sama wëllër soo gisee diggante bi ak li ñuy wax téléphone da ngay jàpp ne dañuy dañuy jàpp ne am nañ kóllëre ay at yu bari ndax koy wax téye téléphone une heure une ngeen di wax waxtu lu waxtu lu ay caaxaan temps dafa seet te dañuy wax lu mat une heure gën ngaa tuuti ci li wax du dugg ci domaine yu fasanti ko bis bi moo ko jàppee Dakar la nekk ci ay xat-xat mu yónnee ma addo yu baree baree baree bare boo def déplacement te temps dafa cher kon su ñëwee dama koy sant gërëm kon dañuy dañuy sant dañuy teg fu kàddu di wax ne euh, dama bëgg ñu dem ci tant ba rek eggalee fa kii incha allah ñu yew ñu yew sëñ Cheikhouna wasalaam maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp nag bu ñu eggee fee sëñ Modou Mbaye Ndiaye ñoom sëñ Pape Laba ku ci ne wàccuwaay bi bi nga